أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tey mooy ñaareelu dars ci kitaab buluug al maram ci kàttanu borom asamaan ak suuf tey ñoo ngi tàmbalee ba tey ci muqaddima bi fi cheikh bi ubbee bunt yi ci sant yàlla julli ci yonent bi ak sahaaba yeeg waa kër yonent bi ñi dimbali woon diine jaar ci yoon bi ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon noon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi ci teg amma baad mu ne ginnaaw loolu cheikh bi nee na fa haaza lii lii lan lii nekk sunu kanam mu ne muxtasarun lu ñu tënk la benn tënk la boo xam ne seex bi moo dugg ci waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci téere yi boroom xam-xam yi yi nga xam ne ñoo bind xadiis yonent bi mu daan ñu fay tënkal benn tënk saa yoo déggee tënk rek lu muy tekki mooy lu bari la woon walla lu gudd ñu gàttal ko loolu mooy muxtasar mooy lu ñu gàttal lu ñu tënk mu ne yastamilu ëmb na lii ma tënk ëmb na denc na làq na ala usulil adilla lii ma leen tënkal li ma koy tënk tënk tënk denc na làq làq na ala usul ci ay cosaan usul soo ko déggee mooy fondement mooy ay reen wàññi ko reen yoo xam ne fondement boo xam ne al adilla ay tegtal la la àndal lan mooy al adilla da ngay jàng usulu salaasa mu ne la war nañoo xam maarifatullah wa maarifatu nabihi wa maarifatu diin al islam bil adilla ci ay tegtal yoo xam dañ la koy jox ci yàlla nee na yonent bi nee na wala boroom xam-xam yi loolu mooy adilla seex bi nee na man tamit lii ma la tënkal maa ngi ko jëlee ci ay cosaan yoo xam ne al adilla la yan adilla adilla ci islam ñeent la adilla ci islam ñeent la mooy alquran sunna ijma qiyaas ñeent yi moom mooy adilla ku lay jox adilla ci àdduna na la jox ci ñeent yi benn yàlla nee na yonent nee na boroom xam-xam yi nee nañ wala qiyaas nee nañ ku la joxul lim la jox wérul ku la joxul fii lim la jox wérul qiyaas mooy lu ñu natt ñu ne waa Medina ñoo ko doon def wala waa Màkk ñoo ko doon def loolu mooy qiyaas mu ne man adilla yi ma la indil usul adilla yi alxadisiya ci xadis laa la ko tënkal téere bi lépp lu ma la ci leeralal ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu atte diine yi xadisu yonent bi laa lay indil alxadisiya nee na xadis yooyu nag ëmb na lil ahkaami ay atte alchariyati atte yi nga xam ne mooy atte sharia gis nga kon téere bi li la ci cheikh bi tënkal ay xadis la yoo xam ne ñoom ñépp dañ lay jàngal atte jaamu yàlla yi ci sharia atte yi ñu atte woo ci sharia nu ñuy jaamoo yàlla lool la la cheikh bi tënkal ci téere bi tudd bulughul maraam nee na xarartuhu firi naa ko firi naa ko xadis yi dama leen a firi taxriiran baaligan firi gu mat sëkk ba lépp loo ci jàng day leer ci yow firi gu leer nañ firi gu wér këng laa la ko firi xarartuhu firi naa ko taxriiran firi boo xam ne baaligan dafa mat limaza liyasiira man yaxfazuhu min bayni aqraanihi naabigan firi naa ko leeral naa ko leeral goo xam ne ngir li yasiira mu mujj nekk man képp koo xam ne yaxfazuhu mokkal na téere bi mokkal na hadis yi min bayni aqraanihi ci maasam gépp naabigan moo ciy gën a ñor moo ci man moo ci raw hadis bi ku ko mokkal téere bi koo mokkal ba mu jeex sa génération yëpp yaa leen mën ci xam-xam yaa leen di gën a mag yaa leen di gën a ñor yaa leen di raw ci fiq loolu la cheikh bi wax naabiran yaay gën a ñor ci sa génération moo tax mu ne li yasiira ngir mu mën a mujj a nekk man képp koo xam ne yaxfazuhu mokkal ne téere bi naabiran min bayni aqraanihi mooy gën a ñor mooy gën a mat mooy raw ci génération bi yépp bu mu àndal moom moo leen di raw waaye yemu maj rek ngir ki koy jàng gën a mat gën a ñor raw maasam waaye wa yastaina bihi talib al mubtadi kii tàmbali jàng ñu mel ni ñun nga xam ne dañuy tàmbali jàng nekk ay ndongo cheikh bi boole nañu ci téere bi mu ne wa yastaina bihi dina ci sukkandiku ci téere bi ab taalibu taalibe aji sàkku xam-xam al mubtadi bi tàmbali kii tàmbali di jàng bëgg xam lu mu jaamoo yàlla bëgg diineem wir bëgg teg jaamu yàllaam ci lu leer ba tax mu gàddu kayam di jàngi cheikh bi programme na la nee na yow tamit boole naa la ci ngir nga sukkandiku ci téere bi nga am foo sukkandiku waaw wàcce na ko ba nga xam ne yow mi tamit boole nañ la ci pour nga am foo teg sa tànk saa yoo defee dara bu la gars yi nee nga ni leen ah yenent bi nee na nga am foo teg sa tànk waaye am na ñeneen ñu mu boole ba tey mu ne wala yastagni anhu raagibul muntahi ki jàng ba egg ci njombaxtalu njàng seex bi nee na kooku tamit mënta dem bàyyi téere bi ndax fa mu nekk ci bibliothèque am lu mu wax wax wax yenn saa yi mu delluwaat ci téere bi kon bu ngeen bu ñu yemee ci ñetti tënk yi dinañ gis seex bi ñetti nit la programme ci téereem bi kan ak kan ah kuy door kuy jàng ak boroom xam-xam ba xam ba pare ñetti ñëpp programme na leen fi mu nekk nii bibliothèque lu muy rëy rëy rëy rëy fa nga fekk fa bulooxul maraam parce que téere bee demee noonu ay nangami nangami boroom xam-xam firi nañ téere bii nangam kooku benn programme sax bu ñu leen waroon defal la ci muqaddima bi ñi firi téere bii ni ñu toll te kenn du ko ci ku ndaw ñi firi téere bii kon ngeen xam ne góor gi ponkal la gis ngeen programme na nit ñi téere bi ci ñetti xeet kuy tàmbali jàng ak kiy jàng ak ki jàng ba pare mu ne waqat bayyantuhu waqat bayyantu leeral naa aqiba kullu hadis ginnaaw hadis bu nekk leeral naa ci man axrajahu min al aimma ku génne téere bi ku génne hadis bi ci ay borom xam-xam yi loolu moo lay wan ne bàyyiwul rek téere bi noonu mu dem xatta ñi génne xadis yi fa mu jëlee xadis yi borom xam-xam ya bu waxee xadis bi ba pare day wax téere bi xadis bi téere ba mu nekk ci ñi ko génne mu ne lu tax ma def loolu li iraadati nushil umma ngir namm naa ci laaye biir xeet wi loolu moo tax pour ñu xam ne man li ma leen jox am na fu ma ko jëlee ma laaye leen ci biir lenn lu ci nekk mu am teguwaay mu am cëslaay ndax boroom xam-xam yi dañ naan al isnaadu min ad-diin loo wax am foo ko sës dafa bokk ci diine ñu ne leen lu tax ñu ne lawla dalika la qaala man shaa ma qaala ku nekk kon lu la neex nga wax li mu amee tey ci jamono Sénégal ngay gis ko wax ba mu neex ko fekk du ne yàlla nee na yonent nee la maanaam moom day wax di dem rek amul isnaad amul càlla la wëñ la goo xam ne puso la goo xam ne wëñ bi geen gi kenn fasowu ko day xëcc rek da ngay xëcc rek moo tax seen wax soo bàyyee ba ñu ñëw ba pare da ngay ñëw xëcc rek mu de mu dañ parce que amul fu mu tegu waaw waaye ku takk sa wëñ ci yàlla nee na yenent nee na boroom xam-xam yi nee nañ buñ ko roccee du dañ waaye ku dul lool rek soo ñëwee ba pare boo xëccee day dañ mu ne waaye nag lii ma leen wan yépp lii ma leen wax ci téere bi ki bëgg a ànd ak man di ko jàng fokk mu comprendre cheikh bi ni mu tërale téere bi nee na yenn saa yi di nga gis ci téere bi ma ni fal muraadu bi sabaa téere hadis bii ma la wax juróom-ñaari nit ñoo ko solo yenn saa yi ma wax loolu juróom-ñaar rek la lay wax mu ne balaa ñuy dem fenn dinaa la leeral juróom-ñaar yooyu lan laa ci namm ñi solo téere hadis yu wér yi ñaata lañ juróom-benn boo cookee Ahmad muy juróom-ñaar tout court loolu mooy boo gisee ci xadis mu ne rawaahu sabaa juróom-ñaari nit ñoo ko solo kan ak kan la yow boo ko trouvé rek am bulughul kii am minhajul muslim ak kii nu mu tuddati bulughul maraam buxaari muslim tëb nga kenn gaawal def ko rang bi mu jub laa ilaaha illallaah kii de du ma am bulughul maraam ak bulughul maraam yi ni ñu rafetee def ko normal waaw yow buxaari muslim abu daawuda tirmisi tegale nga ñeenti de nisaayi ibnu maaja ahmad juróom-ñaar ñaango juróom-ñaar kutubu sitta ngay indi rek ak kenn ki muy ahmad loolu la la cheikh bi di wax ni xoolal mu ne su ma la nee fal muraadu bi saba ahmad la mooy benn ahmad mooy imaam ahmad buxaari muslim abu daawud tirmisi nisaayi ibnu maaja juróom-ñaar ñaango kon saa yoo déggee ci xadis bi ci téere bi ñu jàng xadis ba pare ñu ne rawaahu sab'a sab'a yooyu kan ak kan la yéen a ngi nelaw de yow leen ngir yàlla juróom-ñaari ñu limi ñan ak ñan la wax leen tur yi tàmbali leen ci ni mu ko bindee yéen a ngi tim téere yi xool leen ci saraf bi ahmad buxaari muslim abu daawud tirmisi nisaa'i ibnu maaja mu ne bu ma leen nee sitta juróom benn ñoo ko solo génne leen ahmad mu des buxaari muslim abu daawud tirmisi nisaa'i ibnu maaja gis nga lu tax mu defale mu doxale ko nii su la bëggee war diw diw diw de gis nga day sax mu ne la sitta juróom benn bu leen ne juróom benn nee la ñii laa la bëgg a wax pour nga comprendre ko depuis teel ndax nga teel a mokkal xadis bi day yomb ci yow noonu laa lay toppee ba ma ne la wabil xams juróom juróom yooyu maa ada buxaari wa musliman gis nga génneel buxaari gi muslim mu ne waqat aqulu arba yenn saa yi man la ñeent waqat waqat moom xam ngeen mooy yenn saa yi axyaanan waqat li taqlil mooy yenn saa yi dinaa leen a xadis bi ñeent a ko solo wa ahmad kon suñu la nee xadis bi ñeent ko solo ak Ahmad kan ak kan la Abu Daawuda la Tirmizi Nisaay Ibnu Maaja Ahmad gis ngeen waaw yenn saa yi ma ada salaasa ñett ñoo ko solo ñett ñan la Ibnu Maaja gis nga noonu la la koy toppalee ba yëf yi daal di jeex mu ne yenn saa yi ma ni la bil muttafaqi alayhi xadis bi muttafaq alayhi la ñëpp ci d' accord saa yoo gisee xadis ñu ne la muttafaq alayhi mooy xadis bi buxaari ak muslim ñoo ko solo waaye bi ko buxaari ak muslim solo ñoom ñoo bokk saxaaba bi nettali xadis bi loolu mooy muttafaqun alayhi di ngeen li ma leen wax suñ ne xadis muttafaqun alayhi mooy xadis bi buxaari ak muslim ñoo ko solo loolu benn la ci xàmmekaay ñaareel bi mooy boo demee ci buxaari saxaaba bi nettali xadis bi boo demee ci muslim moo nettali xadis bi loolu mooy muttafaqun alayhi soo demee fee da ngay fekk abu hurayra la nga ñëw fi fekk abu hurayra la wala nga dem fee fekk ibnu omar la nga ñëw fi fekk ibnu omar la nga fekk ko ci buxaari fekk ko ci muslim loolu mooy muttafaqun alayhi d'accord dégg ngeen mu ne yenn saa yi nga dégg ma wax la loolu bépp xadis nag buñ ne muttafaqun alayhi moom xadis ba pare na kooku moom kenn la def mu ngoog mu ne yenn saa yi ma ni la gis nga mu ne la muttafaqun alayhi mooy al buxaari ak muslim ñoo ko solo mu ne yenn saa yi waqat la azkuru maaha gayruhuma waqat la azkuru du loolu la def foofu waqat la azkuru maahuma gayruhuma mu ne yenn saa yi duma tudd nag ànd ak ñoom ñeneen ñu dul ñoom wa ma ada zalika wa huwa mubayyanun mu ne lu dul lii leeral naa ko ci téere bi ba mu leer bépp xadis bu ma indi def naa ci sama kéemtalaayil kattan leeral la nit ñi xadis bi wér na wala wérul wala xadis bi lan la ci nit ñi wax lan la ci boroom xam-xam yi wax cheikh bi bàyyeekoo na foofu ñëw ci li des ku defar lu ne ku defar mbir lu mu mën a doon boo ko defaree ba pare di nga ko wutal tur boo amee doom wutal ko tur boo amee kër wutal ko numéro boo amee oto wutal ko numéro boo amee kanting wutal ko numéro wala nga tuddee ko sax yenn saa yi tur boo amee fas sax yenn saa yi nga tuddee ko tur boo amee xar sax yenn saa yi nga tuddee ko tur muus sax yenn saa yi nga tuddee ko tur cheikh bi tuddee na téere bi buluuxul maraam loolu mooy lan mooy namm téefu namm téef buluux mooy namm jubluwaay walla yeggwaay almaraam ñi bëgg a yegg yeggwaay ñu bëgg a yegg walla dajuwaay ñu bëgg a daj ah yegguwaayu gaa yi bëgg a yegg da ngeen a bëgg a yegg ci xam-xam da ngeen a bëgg a yegg ci jaamu yàlla téere baa ngi nii loolu mooy buluuxul maraam mu ne waaye xam ngeen ni boroom xam-xam yi ndeysaan lépp lu ñu def defuñu ko ngir seen bakkan defuñu ko ngir gis leen ma defuñu ko ngir man dama am xam-xam defuñu ko defuñu ko defuñu ko waaye dañ ko def ngir yàlla moo tax chaque jour téere boo gis buñ koy ubbi tur yàlla tur yonante lañ koy ubbee wax liñ bëgg a wax bu ñu paree buñ koy tëj ñaan yàlla lañ pour yàlla nangul leen li ñu def loolu la ñuy def mu ne wa asal wallahu yàlla asalu laay ñaan an laa yajaala bu mu def maa alim naa li ñu jàng aley naa ci ñun wabaalan mu nekk yenn wala mu nekk perte lii ñu def nii jàng ko ba tëral ko tëralal ko jullit yi pour ñun ak jullit ñi ñu jëriñoo ko ñoo ngi ñaan yàlla yàlla bu mu nekk perte xoolal jàng ni mu méttee xoolal mokkal ni méttee ah nga toogaat bindaat ko lu nekk nga jaar ci fa nga war a jaar waaye ndeke perte la nekk ci yow moo tax seex bi ñaan yàlla subhanahu wa taala waaye ci ñaan bi seex bi ñaan ñun tamit sunu darsu bi ñoo ngi ñaan yàlla bala muy nekk wabaalan alayna su pertaange sunu kaw yàlla nekk ngir yàlla mu ne waan yarzuqanaa yàlla nu yàlla wërsëgal al amalu ñu jëfe bi maa yurdihi lu ko lu mu gërëm moom yàlla lu koy kontaanloo lu ko bégloo moom yàlla gis ngeen li ma leen di wan ne jullit yi rawatina jullit yi njëkk yi rawatina borom xam-xam yi lépp lu ñuy def ngir yàlla moo tax yemul ci ñaan yàlla rek fii waaye mu ñaan yàlla yàlla na leen yàlla wërsëgal ñu jëfe lu koy kontaan la ndax kat borom xam-xam boo xam ne li nga jëfe yàlla kontaanu ci loolu musiba weesu say wax ak say jëf nag lépp looy wax fexeel nga am ci ngërëmal yàlla lépp looy jëf fexeel nga am ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala mu ne ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu jëf ji ñu am ci ngërëmam moom sunu boroom subhanahu tudd naak sellam wa taala moom yàlla kawe na moom yàlla sell na sell goo xam ne foo ko natt weesu na ko moo tax ñi nga xam ne yàlla dafa sell ba ñu taxaw di ko sell di ko sellal guddeeg bëccëg ñooñu yàlla da leen a tagg muy yonent yi alayhimu salaam yàlla ne subhaana subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi gis nga rabbil alamin sell ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy borom teddange gi ci nit ñi liñ koy melal naan yàlla lool la mel yàlla melul loolu yàlla sellam weesu na foofu gis nga jaam yi nga xam ne ñoom ñoo xam yàlla ni ñu mel ba ñu taxaw ci delloo yàlla gëdd googu yàlla leen a ñaanal mu ne wasalaamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin cheikh bi mu noppee ci loolu lan la def première bunt bi muy ubbee téere bi mooy kitaabu at-tahaara kitaabu at-tahaara mooy téereb laab boroom xam-xam yi yàlla na leen yàlla fayal téere bu ñu bind ci fiq walla li ëpp mooy laab la ñuy jiital lu ko waral mooy laab moo jiitu ci lépp mu ne kitaabu tahaara buntu la téereb laab nee na boo xoolee ñaari baat yooyu alkitaabu ak tahaara seen cosaan mu ne ñoom ñaar mu ne ñaari masdar lañ nee na def nañ leen ñu nekk ñaari tur li masailil fiqhi ngir masalay fiqhi yi ñoom ñaari tur yooyu ëmb nañ ala masailil xaas ci masala yoo xam ne dañ leen ko jag dañ leen ko jagleel ñoom ñaari tur yooyu nee na góor gi wa bada a tàmbale na téere bi bi tahaarati ci laab lu tax mu def ko ittibaan li sunnatil musannifin fi zalika def na loolu ngir topp yoonu gaa yi nga xam ne ñooy bindkatu téere yi ñooy borom xam-xam yi ñooy tëral nit ñi bind yi waaye moom daf leen a topp ci yoon woowu ñu tëral ñoom tamit ñu jaar mooy téere bu ñuy bind dars bu ñuy jàngale ci wàllu jaamu yàlla ñu njëkk jàngal jaamu yàlla yi laab ba pare waaw ndax bala nga ne naam ne fa dara ci àdduna ci wàllu jaamu yàlla munoo koo def lu dul lu ciy njëkk mooy laab moo tax mu ne tàmbale na laab mu ne wa taqdiman lil umur ad diiniyati ala gayriha nee na laab moo jiitu ci mbirum diine yi moom lañ jiital ci lépp balaa ngay def dara foog nga laab laab lañu jiital ci lépp lu mu mën a doon lan mooy différence su laab ak set laab ak set luy différence bi ku may tontu aha laab ak set luy différence bi lan moo leen tàqale ak set des na de keneen lan mooy différence su laab ak set bismillah laab mooy laab mooy nga génn sobe sa yaram set mooy nga génn tilim tilim wax na dëgg laab mooy mën ngaa julli nit nag mën na set te du boo séyeeg sa soxna nga yeewu fajar nga jël saaboo njàmpe tàngal ndox def ci eau de javel bomb ba set set nga mais laaboo mais boo jëloon ndox moomu amul saabu amul dara nga sangu janaaba laab nga moo tax bee baat arab yi tuddee ko an nazafa bii baat ñu tuddee ko at tahaara bee baat olof yi tuddee ko set bii ñu tuddee ko laab gis ngeen sénégalais yi nag set la ñuy jaawaleeg laab du benn mu ne def na ko moom boroom xam-xam bi moom cheikh bi ci njëlbeenu bunt ndax ni ko boroom xam-xam yi defee def ko ci njëlbeenu diine wa ihtimaman bi ahamiha ndax yittewoo li nga xam ne moo gën a ëpp solo wa hiya salaate mooy julli julli dafa am importance ba nga xam ne lépp looy def pour jëm jóg ci julli ñu ne laab moo ci jiitu wa lamma kaanat at-tahaara shartan min shurutiha badaa biha at-tahaara mu ne ba nga xamante ne laab benn shart la ci sarti julli bada biha cheikh bi tàmbale ci balaa ngay julli foog nga nga laab gis ngeen doomu aadama bu génnee àdduna sax dañ koy laabal dañ koy sang sangu laab waxuma sangu sedde sangu laab lañ koy sang doo ko suuli ah yàlla dafa bëgg nit set mu ne wa xaqiqatuha dëgg-dëggam moom laab lan la mu ne isticmaalul mutahharayni mooy nga jëfandikoo ñaari mbir yi lay laabal ay ñaari mbir yooyu di laabalaate lan la almaa wa turaab boroom xam-xam yi sax yokk nañ ko dem nañ ba ne wasailu tahaara jumtukaay yi jëfandikoo pour laab ci lislaam ñaata la wasailu tahaara ah boobu de moom jar naa teg téere am na ñu ne ñett am na ñu ne ñeent waaye ñeenteel wi dañ koo dàq kon ñett la ñett yi jëfandikoo pour laab ban ak ban la alma ak turaab ah salj beneen bi ak turaab ah poussière poussière turaab la ban ah boobu boobu naa ko bàyyi noonu boobu ponkalu téere laa ciy teg wasaayilu taxaara dégg ngeen jumtukaay yi ñu jëfandikoo pour laab aca question baa ngoog ñaa ngi ko tontu tontu rek am bulughul marama insha allah lu ñuy jëfandikoo pour laab ñaari seex bi indi na ko mu ngi nii mu ne yu ñuy jëfandikoo pour laab ci ñaari yooyu mooy wax nga ko léegi alma wa turaab mu ne aw ahaduhuma walla benn ci ñoom ñaar soo amul ndox ñu ne la nga wut suuf su fekkee ndox am na suuf dàqu na su ndox amul suuf moo fi sës fa in lam tajidu maan fa tayammamu saidan tayiban mu ngoog su ngeen amul ndox na ngeen tiim ci pàkk bu làpp bu set mu ne waaye ala sifatin mashrua fi izalati najasa wal xadas naka la ñuy tiimee wala naka la ñuy defee loolu mu ne ci yoon ci yoon wi nga xam ne sharia moo ko tëral sharia moo ko tëral fi izalati najasa ci ni ñuy dindee sobe nekkul ne rek da ngay gis koo xam ne dafa ne non man démb da sangu naa ba set ans jël naa sama ndox jël sama savon toilette dem ci dus bi bomb ba nice waaye yow bu dee xale bu jigéen bi mu ne la damaar waaye yow te te du loolu de kenn waxula bomb kenn waxula raggu kenn waxula eau de javel kenn waxula mbomb kenn waxula njàmpe dañu ne la ci yoon wi sharia tëral ne yoon wi la ñuy laabee saxaaba bi dem na julli jot amul ndox mu bërëngu ni fas di bërëngoo xam ngeen bërëngu mu ngeen gis fas bu bërëngu fas buy bërëngu day dem nii ba côté ba bu taq mu demaat beneen côté bi ba mu taq mu jóg saxaaba bi ñoo ne yonent man de bi ma amul ndox noonu laa def mu yonent ne ko kon doon na la doy rek jàngal koy jàngal lu ñuy tiimee doon na la doy rek nga dóor sa tënk yi ci loxo ëf daal di diw ci kanam gi duuraat ëf diw ci loxo yi tënk yi doy na rek nga defoon loolu moo tax ci yoon la woo xam ne sharia moo ko tëral bul def yow ni mu la neexee ut sa ndox def ni mu la neexee ne noonu la ñuy laabee déedéet dañ laa jàngal ci lislaam naka la ñuy laabee bu fekkee ndox la walla bu dee du ndox suuf la naka lañ ciy laabe naka la ñuy tiimee ci suuf si ala sifatin mashrua ci yoon woo xam ne ci melokaan woo xam ne dañ ko yoonal ci sharia fi izalati najasa ci ni ñuy dindee sobe wal xadas ak toj-toj najas ak xadas najas mooy sobe xadas mooy toj-toj ah ku génne ngelaw njàppam toj na ku saw njàppam toj na mu ngoog kon li ko war mooy mu dindi sobe jàpp day wisu jàpp ku am janaaba day sangu doog a julli ci biir sangu bi da ciy jàppaale mbokk yi mu ne li annal faqih ndax boroom xam-xam bi jóg dégg diine di ko jàngale innama yabxas an axwaali afaalil mukallafin boroom xam-xam bu jàng ba dégg diine jóg di ko leeralal jaamu yàlla yi moom lan mooy lan mooy mbiram lu muy ut mooy day gëstu jëfi jaami yàlla yi mu kallaf yi yàlla togg jëf ñu war a jaamu yàlla seen mbir lay xool waaye du dem di xool ñaam ñaari at ñetti at déedéet kooku du xool loolu borom xam-xam bu jàngale diine jëfi ñan lay wax mu kallaf yi kan mooy mu kallaf ci sharia man huwa al mukallaf al mukallafu huwa al baaligu al aqilu alladi balagathu daawatul islam kooku mooy mukallaf ci lislaam mukallaf mooy ku majeur kan mooy ku majeur ci lislaam bu dee góor la mooy ku kawaram sax naq mu gént sëy majeur na bu dee jigéen ku kawaram sax naqam sax kawar mu indisposé majeur la jeex na jeex na majeur na même porte âge at yoo am boo xasee gént sëy nekk nga góor mukallaf nga boo xasee indisposé même porte âge kili nekk nga kilifa ndax buy sëy di am doom booy ah waaw booy jaxasoo di am doom kon léegi nekk nga mukallaf ki gars yi nekk dañ ñu naan noo day am ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak léegi 16 ans yi di am doom 18 bon 16 ans di am doom tey 15 ans 14 ans 13 ans di am doom saa yu indisposé léegi mu kallaf nga yooyu moom nekkatul nattuwaay kon borom xam-xam bi jóg di leeral jaamu yàlla yi lan lay lan moo koy yittee mooy jëfi mu kallaf yi al mu kallaf wal baalix ba pare yemul ci loolu de waa jooju tamit mën na gént sëy mën na mën na waaye ba tey moo nekkagul mu kàllaf de lu tax dafa am lu manqué gu al aqil amul xel kon day am xel parce que ku amul xel amul diine laa diinu liman laa aqla la ku amul xel amoo diine dégg ngeen yonent bi ne rufi alqalam an salaasa xalima gi bakkaar yi tiyaaba yi duñu ko bind ñett ñi kenn du leen ko bindal kuy nelaw ba mu yeewu xale bu ndaw ba mu mesure ku dof ba mu xelam dellusi waaw dof bokkatul ci diine dof bokkatul ci diine ndax amul xel mu ngoog kon day nekk mu kàllaf ba pare am xel ñetteel mooy mu jot woote lislaam loolu mooy lan mooy dëkk bi muy dund lislaam di fa woote est-ce que tey ci àddina bi am na fu lislaam yeggagul am na de am na ñoo xamante ne ba léegi xamaguñ dañ nit ñi dañoo war sol yére ci àll yi am na ñoo xam ne ba léegi xamuñu nit ñi dañoo war a sol yére xam nga ñooñu tey ah ay yaramu neen la ñuy def ngemb wala ñu takk ay caq ay buum yu ndaw ci seen awra yi waaw am na ñoo xam ne loolu du daal ba li xam nga léegi mu ngi noonu kon ñooñu luy seen atte ah ci ci xeet wi lañ bokk waaye dañoo yëgul yéen ñi yéen a fa war a dem yeewi leen te yéen a ngi di toog fii kon gis nga moo tax même ci biir Casamance gi da ngay gis ci biir dëkk bi fii Sénégal ci biir àll yi nii da ngay dem ci àll yoo xamante ne gis nit ñi yëguñu dara ci lu xew wallaay ci biir ci Sénégal fii rek côté yi nit ñi xamuñu dara lu xew waaw am na côté Basara yi ci biir àll ba Basara yi waaw ñooñu xamuñu sax lu xew ñun dem nañ dëkk boo xam ne dañ faa fekk ndaw si faatu dafa ëmboon bi muy faatu xam nga lu fa doon werante dañoo war a dindi doom ji ci biir bi sang ko sang yaay ji ndax ñu ne ñaari néew la dañoo war a sang ñaari ñëpp gis nga am na ñoo xam ne mbirum diine xamuñ ci dara dara yenn saa yi sax dinañ jot tuuti ci lislaam ndeysaan ut seen i kirintindig ne dañuy samp jàkk waaye du ñu gis ku leen jiite julli du ñu xam dara waaw ci ngeen déggoon ndeysaan benn imaam naan dem na ci dëkk imaam bi lan la ñuy jull lan lay jullee mooy xunuut allahumma ahdina fi man hadayt waafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawaalayt loolu lay jiite benn waaye dem fa imaam bi jàng loolu ba pare ba ñu julli ñëpp ñibbi mu topp imaam ba biir këram ne ko ah salaamaaleykum imaam bi mu ne ko wa aleykum salaam mu ne ko du yaa doon jiite mu ne ko waaw mu ne ko waaw saar bi nga doon jàng ban saar la ci fan la nekk ci alxuraan bi daal di koy indil kaamil bu ndaw mu ne ko ah man ne dañ ma ko jàngaloon rek mu ne ko am te xool lu tolloog ay fukki at mi ngi jiite foofu ci àll boobu gis nga kooku ne ko loolu boo ko ci alxuraan waaw dëgg la waaw ñun dem nañ dëkk boo xam ne filmé woon nañ ko sax dama xamul CD yi mu ngi woon ci mbokk yi dëkk ba mu ngi tudd Ndooyeen Séeréer xam nga ko Ndooyeen Séeréer dëkk ba ñun bañ fa demee ñun ñoo génne tabala ja ci biir jàkka ji kenn du fa nodd bu julli jotee tabala bi la ñuy tëgg nit ñi ñëw julli dencaat tabala bi dugal ko ci biir xu bi bu waxtu bi jotee ñu génne ko ci digg tëgg nit ñi ñëw ñu dugalaat ko ñun ñoo fa dem jàngal leen nodd génne tabala bi xale yi ma àndaloon sax am na ci ñoo xam ne ñoo fëq tabala ji ndax dañ ñoon ko ko daal dee mais keroog bi ñu fa takk yóbbu dañu yóbbaale woon ay rajo yóbbaale groupe yóbbaale lépp suñu dund dafa ñetti fan mais fan yooyu ñu fa nekk dëkk ba riir na de bi ñu fa njëkkee nodd ñëpp a daw si te lu yéeme mooy bañ fay ba ñu fay jóge benn xale boo xam ne ñëwoon na nekk ak faam ñun ñetti fan yi moo mën nodd di nodd te kenn jàngalu ko xanaa ni mu doon dégloo rek ba léegi ni moo fay nodd kon ngeen xam ne génn di dem ci àll bi baax na torop dem nañ benn village ci àll bi ñu fekk benn ginaar bu bóof ci jàkka ji ginaar gu bóof ci jàkk ba toj cuuj yi ñun ñoo ñëw ubbi jàkk ji bi julli jotee bañ fa yegsee bi julli jotee ñu songu jàkk ji xëcc bunt yi mu ubbeeku ñu gis jumaa ji ni mu puseere ñu gis ginaar gi toog ci benn ruq ci ñeenti koñ yi jàkka ji buuf ay cuujam lool loolu lu mu lay tegtal mooy dem nañ village boo xamante ne waa village bi rebelle leen dàq ñu daw chrétiens yi daal di jël mbaam xuux yi denc ko ci biir jàkka ji rebelle yi daal di jël jàkka ji daf ko dencukaayu mbaam xuux dem nañ village boo xam ne nag dafa réer ñu koy wër ndeke nag baa ngi ci biir jàkk ji nëbbët dem nañ village boo xamante ne bi ñu fa yegsee mariage lañ demoon takki jabar bi ñu demee yeggi tis ay une heure yooyu tisbaar jot ñu dem ci jàkk ji ñu ñëw yegg si ñu ne jàkk jaa ngi nii gis ñu ko ubbi bi ñu noddee dafa am ñoo xam ne dañu doon def ni seen kirintindi ñi di ñu yërndu seen sàkket yi diñu xool imaam bi daal di ñëw ne xanaa ay gan ngeen ñu ne ko waaw gis ngeen loolu moo leen di wan ne responsabilité bu rëy moo gàllu suñu kaw léeg-léeg loolu leen di gis yenn saa yi ñu génn dem ci àll bi dem Casamance dem Sédhiou dem Buro Faye dem Bignona dem Adéane bi njëkkee dem Casamance guddi gi ñu fa njëkk a fa fanaan ay fetal moo ñu yee boobu ci Casamance gu tàng ga la woon mais léegi sedd na bu jamono yooyu bu ñuy dem du ñu tàgg suñu waa kër yi ne leen ñu ngi dem Casamance parce que koo fa koo ne maa ngi dem Casamance danaan yow am na borom xam-xam yoo xam ne sax bi ñu leen seetee pour ñu ànd ak ñun dañu ne ñu yéen da ngeen di xaru bu ngeen dee da ngeen a xaru waaw da ngeen di xaru ci parce que xam ngeen ne foofu ku fa dem dañ lay rey waaye est-ce que ñun dañuy toog Dakar rek. di naan suñu ataaye ah di julli di bayaan ci suñuy jàkka mu jeex ñu bàyyi ñu bàyyi ay jullit ci ci àll bi ñuy dem safara waxuma sax ay yéeféer mais ay jullit yoo xam ne xamuñ dara ci diine dara dara dara dara da ngay gis foofu kuy julli ne bismillah fas yéene julli farata bi ñaari ràkka la Muhammad moo ko moom daal di julli tisbaar jot mu ne bismillah fas yéene julli farata bi ñeenti rakka la abubakar moo ko moom tàkkusaan jot bismillah fas yéene julli farata bi ñeenti rakka la omara ko moom timis mu ne usmaan gée mu ne ali jeex takk séddi la julli gi saxaaba yi ak yorante bi toog waaw sakk julli noonu la ñuy jullee sakk julli bu julli gi jeex julli yu juróom waaw loolu ñun ñun man gis naa ko teg naa ko bët benn dëkk bu tudd gu tomb loolu foofu laa amee foofu laa ko fekk gu tomb dem nga fa alhamdulilah fu ne la ñuy dem dem nañ bambaali xuus dex gi fu ne lañ dugg biir Casamance waaye boo fa demee da nga yéemu da nga xam ne diine dafa tumaranke diine tumaranke na de Dakar Sénégal daanaka Dakar dong mu am diine am na ci yeneen côté ci àll bi fii soriwul dara da ngay yegg si bëgg a julli ñu ne la fi kenn du fi julli julli ñun fii kenn du fi julli jumaa ji kenn du ko wan ginnaaw nit dina juutu di wan ginnaaw jumaa ji ginnaaw laa xawla wala ko yéen loolu ooy ñun de ñemewuñ loolu nee nañ seen jumaa ji duñ ko juutu maanaam ñoom bu tey bu jumaa ji nekkoon seen kanam ñoom ñu dëkk ci kanamu jumaa ji bu ñuy julli dañuy tourner jublu ci jumaa ji nee nañ duñ juutu seen jumaa wala nga julli ñu ne la tonnil tonnil ba pare nga tonni ko yaa xam foo ko jëmee kenn du fi julli waaw yooyu yëpp am na fii ci Sénégal waaw diine ji de Dakar la yem Sénégal seen diine Dakar la yem boo demee Fuuta kazalik waaw man dem naa dëkk bu tudd dëkk bu tudd nu dëkk bu tudd dëkku Chérif Abba ma fekk fa payi di werante naan allahumma inni uqaddimu ilayka ci ayatul kursi la bokk ci alxuraan la bokk ma fekk fa werante bu tàng ba am ñu gedd jàkk ci ñu ne allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli ci ci ayatul kursi la bokk lu ko indi benn waay bu ñu àndaloon moo moo moom lañ ne ñaanal mu daal di jàng allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ñu ne ko su gaa yi ne ko subhanallah subhanallah ñaan bi jeex bàyyi ne ko lu tax nga dagg ayatul kursi bi mu ne déedéet allahu la ilaha illa ñu ne ko déedéet allahumma inni uqaddimu ilayk bayna yaday zalika kulli allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum dëkk baa ngi tudd caan kon très bien caan kon kon yal na yàlla jubal yal na yàlla jubal ixwaan yi kon boroom xam-xam bi li tax mu tàmbalee ci kitaabu tahara mooy xam ne ndox ak suuf mooy njëlbeen ci lu ñuy laabe ci sobe ak toj ndax ki jàngale dégg diine bay jàngale li ko yitteel mooy mbiru mu kallaf yi mu kallaf mooy ku mesure ku xelu koo xam ne jot na di woote lislaam summa lama kaana almaau huwa almaamuru bi tatxuri bihi qaddamahu fa qaala baabul miyaah loolu moo tax comme ndox mooy njëlbeen lu ñu digali nit ñi nañ ko laabe ndox mooy njëlbeenu li ñu sant nit ñi lu ñu laabe boroom xam-xam bi mu bindee kitaabu tahaara mu daal di bind baabul miyaax buntu ndox sànq ñu ngi doon wax ci taxaara mooy laab moom bu ñuy tënk maanaam moom taxaara dañ naan an nazaafa mooy set mooy laab moom laab moomu nag ci lislaam ibaada jaamu yàlla la gis ngeen tànk ndox dem ci biir duus bi sangu ba pare am tiyaaba allahu akbar moo tax ñun bu ñu déggoon diine dañuy xam ne diine lépp tiyaaba la da ngay am yàlla ba pare am li nga bëgg da ngay set am tiyaaba nga suur am tiyaaba nga rafet am tiyaaba waaye loolu yépp lan moo la koy tàqaleel mooy yéene bi yow mu yor ndox dugg ci toilette bi fas yéenee laab jaamu yàlla da ngay am tiyaaba da ngay laab am tiyaaba bu doon saaboog ñàmpe la sax da ngay set am tiyaaba bu doon yére la sax day rafet foo gën ñu ne la sa yére bi ba pare nga am tiyaaba gis ngeen moo tax mu ne la laab ci lislaam bi ñuy wax ibaada jaamu yàlla la wal muslimu jullit fi kulli ahwaalihi nazif jullit ci mbooleem xew-xewam yi ci mbooleem dundam dafa war a laab dafa war a set li anna allaha farada alayhi tahaara ndax yàlla moo farataal ci moom laab moom jullit wa awjaba alayhi an yutahira sawba yàlla chargé la teg sa kaw ne da ngaa war a setal sa yére da ngaa war a setal sa yaram da ngaa war a setal place bi ngay jullee gis ngeen ñett yi dafa war a set dafa war a laab balaa nga jëm ci jaamu yàlla mooy lan awalan yaram bi na su yaram bi setee nga xool yére yi su yére bi setee nga xool place bi yëpp dafa war a set yëpp fexeel mu laab su laabee nga doog a song la ca des lu tax li tasixa salaatu ndax sa julli mën a wér waliyakuna mahbuban aydan min allahi wannas waaye da nga ciy teg leneen gis nga li may wax li ñu doon wax sànq ci wàllu jaamu yàlla su sa yar su sa yaram setee sa yére set place bi ngay jullee set nga julli yàlla nangu ko ba pare yàlla bëgg la nit ñi bëgg la mës ngeen gis ku set nit ñi bañ ko non diw daal dafa dafa set maa ko bañ ndax dafa set fu ngeen ko déggee ci àdduna wax leen ma ko ban quartier ban kër dafa set maa ko bañ kii dafa set moo tax yàlla bañ ko dégg ngeen ko fenn waaw dañ naan tukuloo yi dañ naan wóowiku mbaree ma woon koo xaali kono mbaree ma woon koo miiji abadan tukuloo yi nee na dañ naan rey leen ko parce que dafa am lu mu wax waaye rey leen ko dafa am lu mu xalaat rey leen ko parce que dafa set ngeen ko gisee ci àdduna kon boo setee ci sa yaram set ci sa yére set ci place bi ngay jullee nga julli yàlla nangu ko waaye wali yakuna mahbuban min allah yàlla da lay bëgg wan naas nit ñi da lay bëgg dalil bi mooy inna allaha yuhibbu tawaabin wa yuhibbu almutatahirin yàlla bëgg na ñi laab yàlla bëgg na ñi ñi tuub ñetteel mooy moom laab wasilatul muslim moom mooy jumtuwaay mooy ngànnaay bii jëme jullit wasilatul muslim ila tahaara hiya alma ngànnaayu jullit bu koy yóbbu ci laab mooy ndox yàlla ne wa anzalna min alsamaai maan tahuuran man yàlla subhanahu wa taala maa leen wàcce ndox mu jóge kaw asmaan muy ndox moo xam ne ndox mu laab la pour ngeen mun ko jëfandikoo pour mën a jaamu yàlla subhanahu wa taala gis nga yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko adduna bi boo ko doon xaaj ñeenti xaaj ñetti xaaj yi mooy ndox ñetti xaaj yi mooy ndox te lépp ndox la ko yàlla sàkkee lépp bu ci ndox bokkul du baax wa jaalna min almaai kullu shay'in xay kullu shay lu ci génn wax leen ma ko kullu shay lépp lu mën a doon borom bi nee na ndox laa ko def moo tax muy dund kullu shay'in lu mu bàyyi xanaa doomu aadama benn benn nit mu ne man de du ma ndox yàpp laa doomu aadama luy cosaanam hal ata ala al insan lam yakun inna xalaqna al insana gis nga ndox la iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insan xalaq ndox la ah fal yanzur al insanu mimma xuliq xuliqa min ma in ma ma ndox la yàlla binde lépp tout ndox la kon li mooy sunu darsu tey ba àllarba bii di ñëwaat ci kattanu borom bi subhanahu wa taala li ci njuum njuum te ñu ngi koy jéggalu sunu borom li ci wér ci yàlla subhanahu wa taala la bàyyee ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am nay laaj bismillah tafaddal da ngay